ci dynamique boobu laa gis ne euh, mën nañ changer li nga xam ne euh, xëy na ñu bëri ñaawlu nañ ko ci doxalin euh, may remercier nag bu baax a baax madame la ministre des sports Khady jën Gaye parce que guleet guleet ci lamb ba lamb di lamb ba tey ci fu CNG mu delloo acteuru lamb yi pour ñu def seen choix loolu c'est à magnifier et on le remercie ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax bu paree ba ñu tànn ñi ñuy tànn dernière décision dogal bi ci moom lay jóge loolu doxalin bu bees la te dafa laaj ñu teg ci teg ci loxo pour mën a vraiment xam réellement ñi li ñuy dund mais buñ la bëggee jël la buñ demee ba ne bëggatuñ la yow sa bopp nga am ngor gis nga mboolo bu yàlla dogalee ñu fal ma mboolo mii toog fii bu ñu jógee ne buggatuñu Malick du ma xaar sax ñu yegg ci loolu damay bind ne ko vraiment comme yéen ma indi woon kon bàyyil ma delloowaat ñu seet keneen pour doxalu lamb parce que li ko gën a tax man mënuma d'accord ñu ne CNG bénévolat bénévolat ci olof mooy boo xam ne fay ñu la dara mais fay ñu la dara ñëpp nee nañ doy na mais pourquoi ñu bëgg a xëccoo jaru ko jaru ko te man euh, li ma bëgg a wax franchement lii ñoom bala gay def ma koy remercier bu baax di remercier son président du Bordeaux parce que lii ñuy def. mbër yëpp ànd ak yow mbër yëpp la parce que démb Ama Baldé woon na ma démb. mbër yëpp ànd ak yow ñii dañoo am combat exactement. exactement tout à fait. xoolal pour confirmer lii Balla di wax. bu ngeen gisee conférence de presse bi démb Balla ak Gris ñoo fa toogoon ak ñoom yaawu jaal ñëpp. parce que mbër yëpp la ñuy amal ak Laasana ak tout le monde bu ma limee du ma matal. Euh, Youssou Ndour ñoom ñëpp a ngi fi bu ma limee du ma matal matal wiiri war ci promoteur yi man kan mooy Baye Ndiaye xam nga ne kenn du ko laajte Baye Ndiaye ay millions demi milliards la ñuy wax ne moom la eh, moom la investir kuy defal ay lu xaaju milliards ci lamb pour jàppale ay jeunes pour jàppale promotion suñu lutte ku mel ne ne bu taxawee ne diw la man jëma bàkk ne war nañ ko gën a bàyyi xel ma yaakaar ne euh, loo loolu yëpp jaay yàgg nañ ko wax parce que bu ma fàttalikoo bu baax euh, ñu ngi ñaanal suñu waajur yi nga xam ne dañ fi génn euh, euh, du Papa Double Less bi mu génnee àddina dañu def délégation dañu def délégation ma jiite ko ñu dem seeti Balla Gaye jaale ko te bu ngeen seetloo ca Covid ba waajur bu góoru Modou Lo génn na àddina ñu defaat même délégation dem seeti ko pour wan leen ne mbër yëpp ñoom la ñu yemale mais au delà du sport dañu war a nekk ay frère dara jarul nekk ci géew di ñàngal parce que lii du dara mbër mi ñàkk ba pare dafa am lu ko métti léegi nag bu amee lu ko métti nga yokk ci di ko naqaral di ko wax yan yi jaru ko mais danga koy soulager xam ne tey dem ndam la suba peut tey victoire la suba ndam la. mais Malick bu ñëwee ci côté ligue simple bi tamit gis nañ ne waa ligue simple moom boo xoolee mën naa ne ñoom ñëpp moom dañuy ñëw derrière toi. xëy na doo loolu lan la. xëy na doo wax ne diw defal naa ko lii defal naa ko lii mais biñ fi indee teg leen loo xam ne balaa ngaa bëri nga fay wallaahi lu gën kaa ne heure bu ma toogee ci table lu ma dix mbër dinaa leen fayal. te décision wala yàlla xam na loolu mbër day ñëw bëgg a bindu yorul ma joxe. du jeex du jeex bu ma koy lim fii ba suba du jeex ñu def bloc ñoom ñëpp boo demee Adrien Senghor bi ñuy voté dañu def bloc ñoom ñëpp ne man la bëgg a jiite leen donc yaakaar boobu nag damay ñaan rek yal na bu ko yàlla tas li ñuy xaar ci man ba ci mbër yi feebar yi parce que ñooñu aussi ci lamb lañ bokk ci lamb lañu bokk war nañu yegg foo xam ne dañuy am ay initiative yoo xam ne ak ak autorité politique yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu jéem leen jege pour que mbër yi nga xam ne dañu feebar te amuñu doole am na ay sociétés yu bëri yu fi nekk fii yu mel ni direction de l' action sociale yu mel ni couverture maladie universelle mais ñàkk leen jege moo tax seulement euh, ñoom liñ ci war a am amuñu ko mm-hmm. donc yooyu yëpp pour ñu gën a yaatal euh, wax ngeen le verdict sans ministre bi wax. kan moo wax verdict bi a wax acteuru lamb ñoo ko wax. acteuru lamb ñoo ko wax. donc ça veut dire que euh, newoon naa bu doon élection ngoon foog naa ñu jubilé def la def euh, mais kilifa bi dañ koy jox cër parce que kilifa bi kilifa la te dernier mot bi ci moom lay ñëwee donc nag mais lépp lépp lépp luñ nar def nag. ci liñ jub jubal jubanti lañ koy teg bu soobee yàlla dërëm buñ ci génne buñ ca yeggee acteuru lamb yëpp dañuy toog ñu ne dërëm bi fii la dugg dërëm bee fu la dugg mais duñu global yëpp ne lii lii la léeg-léeg loolu dafa yomb mais Malick am na ñoo xam ne bokkuñu ak wane nii lamb mu ngi dund day wane les acteurs de la lutte fooyewuñu lamb ndax quand c'est décisif nga gis ñëpp ñëw taxaw da xam ni nag wax dëgg yàlla làmb moom ah, xaw ma ñu ko amee mais ñi si nekk acteur moom fonk nañ ko quoi donc soo xoolee présence bi surtout la présence massive de euh, des médias et également de acteurs de lutte pour faire le choix du président vraiment damay rafetlu taxawaay boobu voilà di leen déglu nag. mais tey par rapport ak euh, ni mu demee nii nga xam ne boo xoolee mën nañ nag tiraay maa lañ ko mën a tuddee par rapport ak euh, yenn gis-gis ak yenn doxalin yi est-ce que nii la waroon demee. non je ne pense pas que ni tiraillement am na. man je dis que ni la victoire est déjà actée. victoire am oui la victoire est déjà actée. Ah, ah bon oui parce que tey soo dégloo ni ñi gis ñu fi mobiliser seen mobilisation lenn rek la muy mobilisation derrière Malick Ngom muy les VIP muy les managers muy ancien anciens. donc

C'est le candidat de tous les mais mais mais Bira Sène kon daa war a ñëw. Bira Sène daa war a génn.